daanaka mën naa ne fi mu toll dafa mel ni ndaw ñi di moom dañ koo porteel seen bopp gaa yaa ngi def ay appel fépp rek ngir mën a daje ji foofa noona nga xam ne ni fa lañ wootee Ousmane Sonko nag moo tax gaa yi di ñëw voilà na leer parce que gaa yi moom Ousmane Sonko la ñu gëm waaw projet bu Ousmane Sonko bi dañ cee sonn dañoo am yaakaar ne ëllëg Ousmane Sonko la leen génne ci jafe-jafe yi mais nag bu leen fàtte ne Ousmane Sonko dafa tenir ay discours yoo xam ne nii yaakaar naa ni war ngeen koo xam war ngeen koo fàttaliku bu baax a baax a baax kaay leen ñu defar réew mi la wax moom du defar réew mi de day jiitu rek nekk ci kanam wala xëy na loolu la waaye kaay leen ñu defar réew mi buñ ko waxee mooy kenn ku ci nekk xamal ne rek yaa ngi ci biir parce que nag suñu réew mi pour mu avancer pour mu dem pour ñu mën a gis suñu bopp bu baax a baax a baax faaw ñuy génn li ñu war a génn def ko ci impôt yi impôt yooyu noonu tey jii nag xaalis yooyu nga xam dañ koy am. ñu di ko defaat ci réew mi bu ko defee ñu xam ne nag ñun kat voilà lii moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax a baax a baax ki ñu jiite nag voilà yéex naa ñëw voilà parce que c'est parce que loolu la ñu soxla waaye ñi waaye li nga xam ne nii loolu la ñu xam depuis 1960 ba léegi jox leen ma réew ma defar mais réew mi bu ñu la ko joxee doo ko defar voilà réew mi kaay leen ñu defar réew mi moo gën jox leen ma réew mi ma defar voilà boobu noonu nag. moom la président yu baree baree baree bari euh, def ci seen réew yi nga xam ne ni moo tax tey jii ñu mën a avancer réew yu baree baree bari foofu lañ jaar parce que ñoom bi ñu ñëwee dañoo xool ni maanaam faaw rek ñu def seen kémtu lay kattan pour mën a fexe ba protéger seen i doomi réew protéger li nekk ci réew mi bu ko defee nag euh, ñi nekk ci réew mi di defar di setal di jël seen alal di ko def ci impôt yi nga xam ne ni mooy tax sunu réew mi mën a avancer jëm ca kanam voilà waaye nag ñu jox la réew mi nga fàtte ni maanaam yow dañ la dénk réew mi nga mel ne rek yow yaa moom réew mi voilà di jënd ay douzaine oto wala fo oto bu rafet gis nga gis jënd ko fu montre bu rafet nekk nga jënd ko te day cher lool fàtte nga askan wi nga xam ne ni ñoo la faloon loolu nag dafa mel ni wax dëgg yàlla kon euh, yow pareegoo pour defar réew mi ki pare rek pour defar réew mi rus naa takk yenn montre yi rus naa jënd yenn oto yi rus naa jënd maanaam daal day xam ni moom li ñu ko dénk dénkaat la te war na fexe ba tout bala ma fiy jógee bàyyi fi loo xam ne nii dafay doon image boo xam ne vraiment kenn dootul saña wax ni lii defu ko fi voilà kon loolu daal euh, euh, yaakaar naa ne Ousmane Sonko fàttali woon na ko ñu baree baree baree bari kaay leen ñu defar réew mi man bu ngeen ma jaxee dañuy defar réew mi dañuy defar réew mi nag kenn ku ci nekk nag dangay ngay defar kenn ku nekk dangay ngay yëkkati impôt yi nga xam ne da ko war di fay nga di fay normal bu ko nag ñi nga xam dañ ñoo jiite voilà ñu jox leen pour ñu defar bu ko defee impôt yooyu noonu danañ ko dugal fi nga xam ne ni foofu la askan bi soxla voilà kon nag Ousmane Sonko boo gisee xale yi wax dëgg yàlla jox ko euh, euh, nopp bi daal di koy jox bopp jox ko lépp nga xam ne fo mu wootee rek ñëpp dañuy bëgg a teew loolu kan nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel xam ne Ousmane Sonko daal moo woote Ousmane Sonko la ndaw ñi am yaakaar bari na ci ñoo xam seen yaakaar moom yàkkeeku na bari na ci ñoo xam jàpp na duñ fekkee ci Sénégal bari na ñoo xam jàpp nañ Sénégal du baax ba tax na ñoom ñu gàddaay dem ci yeneen réew waaye am na ñu fi des ba léegi ndaw ñooñu tamit ñu ngi wéy di ànd ak Ousmane Sonko muy neex muy naqari saa su nekk rek ñu ngi ànd ak moom voilà kon ndaw yi Pastef kan ndaw yi ñi nga xam ne ñooy vingt 2024 ñoom saa su nekk rek ñu ngi focus 2024 saa su nekk rek ñu nga ànd ak Ousmane Sonko ngir jàppale ko ngir vingt 2024 mu mën a réussir mission boobu noonu xam naa nag bari na ñoo xam ne jàpp na ni moom voilà Ousmane Sonko non ah kay Ousmane Sonko ñu bari ndaw ñu bari ci moom lañ ëpp yaakaar. ci ñaneen ñi ñaneen ñi nag du ma kenn amul ci ñoom yaakaar waaye ndaw ñi ñu ci baree baree baree bari ci Ousmane Sonko lañ ëpp yaakaar ndax discours bi nga xam da koo tenir ba dugal ko ci bopp ndaw ñi dugal ko ci xolu ndaw ñi loolu moo tax ndaw ñi ci moom lañ ëpp yaakaar voilà xëy na nag yàlla moom euh, moom euh, euh, lu ko neex lay def wala xëy na tamit voilà Euh, euh, euh, man na ni kii la après mu jox ko keneen voilà loolu gis nañ ko waaye nag am na ñoo xam ne nii bu ñu xoolee maanaam politique bi fi mu toll tey ak candidat yeeg seen i discours ak seen i image ak seen i wax Ousmane wax dëgg yàlla bu ñu waxee la yàlla moom mooy pee moo nekk ca kanam ay discours neex na dégg li muy wax leer na te bala muy wax li ma ci gën a neex mooy wolof lay njëkk a wax door a waxi français loolu moom gëm sa bopp mënu ko weesu wala français kenn duñu ko kenn ni duñ ko wax fii ci Sénégal waaye njëkk si sa langue bopp ba pare teg ci français booy def sa discours dafa neex dafa am solo loolu dafay wane ne jox nga gëdd sa euh, askan jox nga gëdd sa langue.